asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di tàmbalee suñuy kàddu yeesalaat suñu jaayante ci seexu Ahmadul Xaddim di sant Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ne moo yor sunu nos di nu wommat te yëg nañ ne li mu bëgg ci nun mooy ñi gënoon a baax ci lislaam bu ëllëgee suñu borom bu leen di teral nun ñi tey ji ñu toogandoog ñoom mi ngi dimbali di ñu wommat di nu xamal nan la ñuy liggéeyal la sëñ kon yàlla na ko fi yàlla yàggal mu amuk wér ba li mu nisar bëgg koo def ci yoonu sëñ Tuubaa lépp mu def ci lu kawe njort ñoo ngi santit njabootu sëñ Tuubaa gépp ndax xam nañ ne fu Cheikh Mouhamadul taxaat taxaw ñoom ñëpp fa lañ taxaw loolu bi génn kàddu lañu seen jëf lenn la kon moom bu ñu ko tuddee rek tuddaale nañ njabootu sëñ Tuubaa gépp euh, di sant nag Cheikh Mouhamadul Bachir ndax kàddu yi mu jottali démb ci àllarba ji muy fukki fan ak juróom-ñett ci septembre ñu ñëpp dégg nañ ko kon moom la sëriñ bi jox ay kàddoom mu jottali ko mbokki taalibe yëpp ba ñëpp déggandoo xam ne yitte ju taxaw am na Cheikh Mamadou Muntaxa mi ngi taxaw ca kanam ni mu taxawee ci kanam ci xare boo xamante ne dafa mel ni képp ku yaakaar sëñ Tuubaa sa pas-pas mooy doon ci dara muy jafe-jafe boo xam ne ñëw na ci Touba te sëriñ Touba xam nañ ne Touba moo pàggutee fu àdduna àdduna ji mu amoon joo xamante ne bëggoon na ko noo xamante ne lu ko fi waay defal sak pay moo la koy moo moo la koy joxal boppam kon moo tax li Cheikh Mamadou Bassir wax dong yëpp dégg nañ ko Cheikh mun Mountakha moo sos ab kuréel boo xamante ne tudde na ko junnatun li man nazamahu mi ngi ko sosee ci ñetti kuréel yi ñun ñëpp ñu teew mooy Touba ca kanam la woo woo Hizbut Tarqiyyah woo tamit Euh, commune Touba ku ne xam na ne commune tuubaa lépp lu ñuy def ci wàllu mbënd lu ci waay def ñoom nga ñoom ngay ñoom ngay jàppale ku ne xam na ne Touba ci kanam yàgg nañoo liggéey ci loolee ak yeneen fànn yoo xam ne lépp Touba rek moo leen ñor ñun itam dafa mel ni bu ñu nee Hizbut Tarqiyyah ay soldats yi Sëriñ lañ yoo xam ne dong yëpp dugg nañ ci biir kon sëriñ bi dafa xam ne àdduna moo toll ci jamono joo xamante ne euh, dafa mel ni wéet ak beru du tax a gañe ab xare mboole ñu bokk yitte dañuy boole seen bopp boole seen yitte boole seen pas-pas boole seen i pexe su ko defee lu ñu song mu daanu kon loolu moo waral lii nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha def na ko nag wuyu si ndax amuñu ak bëgg amuñu ak tànn bëggam rek ci la ñuy ci la ñuy gont ci la ñuy njànq ci la rañaan moom nag moo tànn tur wi ba noppi it mu mel ni mu jublu compte boobu nga xamante ne dañ ko war a dañ ko war a dañoo war a ubbi ab compte boo xam ne tour woowu ci lay nekk ndax mënu mënoon na ko def ci Hizbut Tarqiyyah defu ko ci mënoon na ko def ci compte Touba ci kanam waaye defu ko ci mënoon na ko def ci compte commune bi waaye defu ko ci dafa sàkk kuréel bi dañoo mujj jël procédure d'urgence pour créer li nga xamante ne mooy tax ñu mën ubbi ay compte kon fi ñu toll ni ci jantu benn bis am nañ compte bis am nañ compte Ecobank Ecobank te yeneen banque yëpp nañ ci ami compte ndax mbirum sëñ Touba faw da ngay bàyyi xel ne kenn ku ci ne mën na cee jàpp dara waaye kenn mënu koo matale euh, bu dee compte Wave it ak compte euh, Orange Money wala tamit euh, compte Expresso yooyu yëpp dina ñëw te it réseau réseaux sociaux yi incha allah dinañ ko relayer jàllale ko ba murit fu mu ne daal di xam ne lii yitte jaa ngi nii te lii mooy taxawaay bu mu laaj ñu bëgg leen leeral ne nag dëgg la jël sa ñaq def ci. bari na ñuy woote di bëgg xam nuñ koy defee waaye dafa am loo xam ne moo gën a jàmp ndax sëriñ bi dafa jëf ñaari téeméeri million bu ko jëlee def ko commune bi indi juróom-benn fukki million kon fi mu toll li gën a jàmp mooy taxaw ci recensement yi ñoo ngi ci te loolu munuñu koo def te ànduñoo les services compétents de l'État sous préfet ñoo ngi ànd ak moom moom mooy mobiliser li nga xamante ne moom la ñuy wax la commandement territorial ñu ànd ak ñoom liggéey xam ne dañoo toll ci jamono joo xam ne ku ne da ngay jox sa loxo ndax jënn yitte la muy un sursaut national euh, loolee nag li ñu ci bëgg xamle mooy recensement bi du ñu bàyyi dara diggante ñan ñoo loru ci seen i dëkkuwaay ñan ñoo loru ci ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ak taxawaayu seen seenu njaboot ak ñi nga xam ne dañoo gaañu ñu war leen taxawu ci hôpitaux yi ak lépp loo xam ne jëm na ci kër yi nga xamante ne ndox mi dafa war a génn wala ñoo xam dañ leen war a toxalee foofu yóbbu leen feneen lijjanti ay kër yoo xam ne fa lañ leen di yóbbu ak ay barab ba ci Touba ci kanam am na barab bu yaatu boo xam ne faggu nañ ko sonn ci ngir mu doon barab boo xam ne dina am ñu fa mën a ne loolu ñu boole kook yeneen pexe yoo xam ne ay taalibe ñu ngi koy def waaye balaa muy mën a yomb faw commission yi taxaw ñu ñu fexe ba nosu nosu goo xam ne mooy tax ku am xalaat bu rafet wala ku am mën-mën nga mën a xam foo koy jaarale loolu moo waral kon comité de pilotage bi ginnaaw bi ñu ko taxawalee ci njiitu ñetti kilifa yi nga xamante ne yàlla dogal na ñu nekk ci boppi mbooloo yooyu ku ne xam na ne am nañ général ndax sëñ Mountakha nee na ñett ngeen woon waaye man maay ñeenteel bi. loolu nag doy na sant yàlla doy na dalum xel. Euh, mooy wane na it fa mu toog di ñaan moo lay wóor ne lépp lu nu yéene ci suñu xol la koy jàppandal ci moom mi rek la ne. ndax saxaba yi. li ñuy baax baax baax ak li ñuy jàmbaare jàmbaare la leen tax la leen la leen tax a gañe xare yi xam nañ ne ci mbóot mi ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam la nekkoon loolu mooy dox bu bisub tey kon ma bëgg ñu xam ne liggéey bi commission ak comité de pilotage taxaw na am na ñoo xam ne ci Touba ci kanam lañ leen jëlee am na ñoo xam ne ci Hizbut Tarqiyyah lañ nekk am na ñoo xamante ne tamit ñu ngi nekk ci commune bi ñooñu léegi am nañ quartier général fii ci kër Sëñ Touba ngi jàkkaarloog jumaa ji bés set dañ fiy xëy ku fi ñëw guddi di leen fi fekk ku fi ñëw bëccëg di nga leen fi fekk amatul arrêt ndax du yitte yoo xamante ne mën na am attandiku wala mën na am feneti wala mën na am jëlale faw day doon loo xamante ne permanence la laaj euh, ku ñëw indi dara it boo indee di nga leen fi fekk koo xam ne nag da nga soxlawoo ay numéro yoo xamante ne mën nga leen a woo ngir ñu gindi la ci fi ngay jaarale li ngay def nañu xam ne bu dee compte bancaire yi moom wax nañ leen ko junnatun li man nadamahoo kuréel la am na ay compte bancaire kuy joxe lu jëm ci yitte ji sëñ taxa am day foofu nga koy dugal loolu kon leer na euh, am na commission administra administration am na commission finance am na commission technique am na commission tamit sociale waaye tamit am na commission communication yooyu yëpp kon nosu na noo xamante ne euh, dina amaat yeneen euh, yeneen communication walla yeneen leeral yoo xam ne ñoom ci seen bopp dinañ ko def ci presse bi mu gën di yaatu ba ñu gën a xam ne yitte ji taxaw na saa su dem dem na te dootul dellu si te bu demee rek te te yóbbaale lu ñu ak farlu boo moytul dina am ñoo xamante ne lor bi day gën a diis ci ñoom kon moo tax kon ñu bëgg ñu xam ne nii la ñu nii la ñu ma bëgg nag fàttaliwaat bokki donga yëpp ñu xam ne njabootu sëñ Tuubaa gi ñoom benn baat la ñu am genn kàddu la am fi ñu toll ni kër yi nga xamante ne mooy kër yi ñu mën a dugg bare na ci ñoo xam ne ci njabootu sëñ Tuubaa dañuy ñëw raam ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha ne ko nangam am naa ko mën nga ko boole ci yitte ji te ñu bëgg sax feeñ kon nun dongay nan xam suñu bopp nan xam suñu bopp tuubaa gii mooy fu Serigne Touba lu ko fi waay defal fii ci àdduna bés penc doo wéet di nga fa am ndimbal te Serigne Touba la koy defal ndax wax na ko ñëpp dégg ko ku ne xam na ne tuubaa gii moom wax na ne dóor yi wa maa lixtiira min jiiraani naajiyatun min jaalibil xusraani ku fi nekk doo yàqu lii nga xam ne moo ñëw di nattu di tiis nañ xam ne saxaba yi daan nañ dajeek moom nañ xam ne ñu àndoon ak Sëñ Tuubaa daan nañ dajeek moom nañ rafetal rek te te te dekkalaat li nga xam ne mooy solidarité bi suñ ko defee dina woyof waaye suñu borom moom moo waxaloon boppam ne wala nablu wannakum bi shay'in min al xawfi wa ju'in wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samarat loolu bu ko waxee daal di indi laamu xasab ku ne xam ne li suñu borom waat dina ko def kon ab jullit bu bëggee muy yomb rek ak di neex ci moom loolu na xam ne bu bu bëggee sax ci yoon wi du loolu mënta ne kon ñu ngi sant kilifa yi ma ko seqal nga xam ne ay kilifa laa leen def ndax euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Ibrahima mii dafa mel ni fi mu toll daa mel ni sëñ Mountakha ci boppam moo teew ci jataay bi euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad mii itam ku ne xam na ne commune bi li ko ko sëriñ bi dénkee dong bu ne war naa xam ne sëriñ bi moom lépp lu mu joxoñ ñun moom la ñu war a joxoñ salabul ixtiyaar mooy yoon wi fii du barab bu ñuy wootee naan nangam lañuy def diw laa bëgg wala nangam sëñ bi lu mu bëgg rek nañu jàpp topp ci ginnaawam bu doonoon ko tëlee sax sunu ànd ak moom dina tax mu mën euh, euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad mi itam mu ngi fi teew teewaayu sëñ Abibu teewaayu teewaale fi mboolem waa Touba ca kanam kon ñu ngi leen di sant ànd bi rafet na nangu ndigalul sëñ bi tax na mu wóor ma ne liñ bëgg te di ko fas ci suñu xol dinañ ko am waaw jërë ngeen jëf lii daal moo doon kàddu yoo xam ne mënuma ko ci